ak lu ci mën di dondu ne état bu Sénégal digée na ne ci talaata ji dina dawal concessionnaire yooyu lay juróom-ñetti milliards ñoom ñu nag yor woto yi tonni mbalit nee na bu ñu jotee koppari rek danañu suubaat ci liggéey bi euh, mu ngo grève euh, Fatou Abdou bu ñu tàmbali woon ayu bés bi ñu weesu mu commencé impacté bu baax a baax dindunu Sénégalais yi waaw parce que euh, mbalit moom xam nga kenn mënul dëkkaale ak moom et aussi nag ñu rafetlu liggéey bi nga xam ne UCG bis mi ngi koy def parce que gis nañu ne depuis un certain temps bariwul lu ñuy gis banque loxo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee yamuñu ci mais bésu feet muy korité wala tabaski da nga daan gis ne Dakar dafay fes dell ak mbalit mais léegi euh, bésu korité muy bésu tabaski ba ci sax yenn événement yi nga xam ne daf fiy am da gis ne da ciy am ñoo xam ne dañuy liggéey ci guddi gi wala ñu liggéey fajarteel donc ay jàmbaar lañu maintenant seeni revendication je pense que war nañ ci taxaw bu baax a baax ministère bi ñu dégg wàllu hygiène publique moom war na ci taxaw bu baax a baax fexe ba li nga xamante ne kon moom mooy seen ay jàmbar mu indi ci solution euh, ba nga xamante ne sénégalais xale bu ñu yeewoo xëy na suba dinañu fekk ñu mën leen a àndal seen ay mbalit. Mhm. Euh, préciser nañu ko Ndeye Fatou euh, li ñu leen dig ndax promesse la ba tey ci huit milliards premier trimestre bu atum kese la concerné maanaam risque beneen grève mën na amaat. waaw mën na amaat parce que bu fekkee ne euh, du lépp lañ satisfaire ci seen revendication ñoom mun nañoo dem ba ci kanam tamit daal di defaat beneen mouvement d'humeur mais liberté war mooy nañu fexe ba lii ñu engagé wu sax nañ ko matale parce que tamit des fois négociation day ubbeeku nguur gi jël ay euh, kii nii engagement mais après à la fin bés bu exécution jotee ay dóor dàqe moo ciy topp donc nañu fexe ba ñoom it ñu exécuter lii tout d'abord après nag ñu jëm ci yeneen point de revendication yi parce que tamit secteur du nettoiement xadi dañu jar a jàppale jii boo gisee suñu cadre de vie am na mu mel ñoom dañ ci jouer un rôle majeur surtout nag léegi benn modèle bu ñuy liggéeyee muy guddi gi da ngay gis guddi gi fu nekk ci mbedd yi dangay gis ñuy nekk di an mbalit bi mais aussi di fexe ba cet mën a am ndax suñu cadre de vie dafa important toll nañ ci jamono joo xamante ne yenn maladie yu bëri cadre de vie bu bon da koy indi en tout cas da koy gën a yombal donc suñu amee cadre de vie bu set dafay bokk sax ci xeex euh, lu jëm ci yenn jàngoro yi kon paj geeg wér gi daf ciy gën a renforcer mais environnement bi fii nee naa léegi espace yi amatul sax espace vert yu bari yoo xam ne mën nga fa dem pour mën a nooyi nature bi donc comme amuñu loolu nañ fexe ba suñu mbedd yeeg suñu koñ yi ñu am ñu di ko setal te loolu agent du nettoiement bi dañ ci am rôle bu essentiel donc nañ leen gën a leen encouragé te bañ vraiment di leen di indil jafe-jafe ci liggéey bi. ngok euh, Ndeye Fatou ñu àddu ci euh, leneen wax ci lancement tey ci suba bu ab euh, guide sécurité routière bu ñu jagleel tout tànk yi fii ci Sénégal ci ab jongat bu société sénégalaise bu chirurgie pédiatrique amal ñoom ci ñeenti téeméeri cas ak ñaar fukk ak juróom yi nga xamante ni jot nañu ko téeméer boo ci jël juróom benn fukk ak ñaar yi ay tout tànk la yoo xamante ne seen ay accident ñaar fukk euh, naka noonee euh, mu moyenne d'âge bi kon di juróom-ñaar cérémonie lancement bi ñu ngi ko amaloon euh, tey ci suba ci teewaayu agence nationale bu sécurité routière direction bu contrôle médical scolaire ak partenaires yi ak itam teewaayu Ajaratu Aïcha Ñing bu ñuy jàll ci tali bi bari na xayma yi dañu raklu. àdduna bi wërngal kap toll nañ ci cent quatre-vingt-six mille trois cent. juróomi téeméeri xale danañ ci ñàkk seen bakkan. am na fukki million yi xale yoo xamante ne yii dañ ci am ay gaañu gaañu yoo xam ne daf leen di topp. ba seen ngir dund. ngir fexe ba xale yi aaru ci mboori l'école yi amal nañu benn guide bu ñu duppee guide de la sécurité routière. bu ñu nee programme éducation nationale nag dafa laal éducation bu ñu jàngal ci wàllum wàllum nasaraan waaye dafa laal daara yi. apporter xale bi mooy d'abord xam-xam lu muy apporter xale bi mooy mu xam naka lay comporté woo ci kaw tali lu muy apporter xale bi mooy sécurité. éducation routière dañ ko war a boole ci curricula ci l'école yi. pour que ëllëg xale yi am comportement bu mucc ayib bu ñuy jàngi wala bu ñuy euh, dellu si wala it bu leen seen waajur yi yónnee ñu xam na la ñuy traversé na la ñuy doxee maanaam le mieux vivre avec la route loolu lañ ci séntu. am nañ benn plaidoyer bu ñu def jagleel ko kilifa yi ngir ñu boole benn module jëm ci sécurité routière ci programme yi ci wàllu formation yi ak it njàngale mi. parce que xadi xale yi lu ci bëri des fois accident routier yi da leen di indil gàllankoor ci seen girib dund parce que xale xamul dara mhm. da ngay gis ñuy daw ci tali du ñu sax bàyyi xel oto yi te léegi dakaar dafa am lu fi am lu bees muy deux yi dañu bëri trop trop ci tali bi donc nañu a dimbali xale yi parce que école yi su xasee ubbi xale yi ñu ngi ci mbedd mi ñu ngi ci tali bi te en général école yu ci na a am sécurité si ñoom donc nañ leen gën a sensibiliser gën leen encadrer mais aussi au ci weti établissement scolaire yi mu am ñoo xam ne genre éclaireur la ñuy doon pour di dimbali xale yi ñuy jege ko yooyu parce que suñ ko deful aussi xale encadrer ko des su fekkee ne amul présence physique mën na jafe donc li d'abord sensibilisation mais aussi fexe ba ay nit di taxaw di leen di jàppale ci jéggi tali parce que loolu ça pose problème ci yenn diwaan yi ak yenn gox-goxaan yi. Euh, Ndeye faatu li mu wax am na solo Fatou Abdou waaye ndax waruñ ci boole parents yi ndax li mu wax école yu bari am na ñoo xamante ni ñooy taxaw ci tali bi pour xale yi jéggi mais am na. fu ñu mën yam yem ñooñu am na foo xamante ne duñu fa nekk bien nga dëkk boo xamante ne bu ñu dee wax ne dinañu am 7000 accidents mhm. euh, par année euh, boo ci génnee accident yi nga xam ne tout tànk yi dañu koy amee euh, lim bi également noonu la ci takkoo dégg nañ léegi reportage yi moo lay wan ne li nga xam ne moom la accident di jur dafa bari ci wàllu koom ci avenir tout tànk bi nga mhm. xamante ne mi ngi koy yàq et loolu pour nga gis ko sax ci école privée yi la ëppee nga gis ne dinañu topp xale bi ba mu jéggi ñaan ñi nga xam ne ñoom ñooy dawal ngir mën a may xale bi mu jéggi mais xay na bu fekkee ne xale bi euh, tali ba muy jéggi dafa sori ak école am ka nga xam ne mooy gardien bi wala ki nga xam ne mooy gérer sécurité école bi du leen mën a topp ba ñu jéggi et loolu c'est la responsabilité des parents mm-hmm. parce que tout tànk bi buy jàngi war nga ko mën a gunge ba ci bërëbu bi boo xamee heure am war nga ko dem jëli ngir a yi nga xam ne mi xam ne mooy yoonu école. ngoog Fatou Abdou ñu wax ci bésu tay bi di fukkeelu fan ak juróom-ñett bu weerub décembre ci àdduna wëlngal këpp ñu jagleel ko migrants yi ca loolee la ONG Horizon Sans ak taskatu xibaar yi ki nga xamante ni moom mooy njiit la di fàttali mbëkk mi loronge yëpp yi nga xamante ne moom la am ci réew mi waaye itam biti réew di xamle ni ci Afrique gën kaa new lu tolloog ñetti junniy doomu aadama ñàkk nañu ci seen bakkan leneen lu leen tàmbalee ci tiital itam bokk na ci jigéen yi nga xamante ne léegi eh, dañ caa bokk ñu onu ci ak Ndeye Khady national lañu waroon a amal tey ngir màggal bëccëg bi ñu jagleel ñiy mbëkki ak màngaani ngir rendre hommage lu toll ci ñetti junni ndawi Afrique yi ñàkk seen bakkan ci waax yi. am na ñu wax ni sax ëpp na ko. ñi dee ci géej gi. Sénégal dëkk yu mel ni Fass Boye dëkk yu boo demee fu boo demee fu mel ni ñu ngi continuer di daj ba léegi. ndóol ak ñàkkub xëy rek taxul ndaw yi di fi bawoo. parce que avant dañ doon wax c'est la jeunesse désœuvrée qui part waaye soo wëree nga xool tuuti avec la destination Nicaragua di nga gis ni on ne peut plus parler d'extrême pauvreté parce que su ñu demee ba un billet di jar plus de quatre millions de francs CFA da ngay gis ku liggéey sax bàyyi liggéeyam. migration soppi xar kanam ñu dem ba di ci nemmeeku ay soxna. ni góor ñi doon tukkee pilo région économique tey noonu la jigéen ñi tamit du tukkee li ko indi nag mooy euh, au niveau des femmes da nga gis ni nous avons un taux euh, euh, d'emploi. diggante benn fan ci weeru janvier jàpp weeru novembre fanweeri junneeg ñaar yu tafal juróom benn téeméer ak juróom-ñeent li ci ëpp di ay doomi réewu Sénégal ñoo dugg ca île Canaries ngir dakkal màngaani mi nag Horizon sans frontières di sàkku ñu amal ay penco ci wàllu mbëkk mi. ba tey ci wàllu wi njiitu association femmes enfants migration et développement communautaire ñoom li ñu bëgg mooy waxtaan ak askan wi euh, ci phénomène u mbëkk mi nga xamante ne ayuba si ñu weesu dafa gën a yokku Ngoné Ndoye nekkoon jëwriñ bi ñu dénkoon sénégalais de l'extérieur moom moo euh, jiite woon boobulee manifestation ñu ondi ci moom communication bi mu am problème euh, bu fekkente ne xale yi dañoo riir wuti àll bi dañoo riir bay seen bopp fu ñu xamul bi ñu doon des ci géej ci rek wala di jël désert bi ñëpp dañu doon wax migration économique la